yu bàyyi ko ci moom ñu ñaanal sëriñ bi nag mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li mu bëgg a liggéey sëriñ Tuubaa lépp mu def ko ni mu ko bëggee ndigal li nag mi ngi ko jëmale ci waa Tuubaa ci kanam ci njiitalu sëriñ Abibu Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne mooy seen jëruñ sëriñ bi woolu ko léegi ba mu ñëw mu yëkkati kàddu cant ak ngërëm teg ko ci loxoom ne ko noo ko jàllale ci mboolem. mbooloo mi ak mbooloo mi ñu ciy dugal seen alal ñëpp ne ko maa leen sant bu baax di leen gërëm ndax na ma leen ko waxe woon ca tàmbali ba ba nag ni waxtu ne loolu laa gis mooy neewoon naa leen amul menn mbooloo moo xam ne ëpp naa ci mu yaakaar seen mbooloo mi yaakaar jooju nag nee na saa su ma xëyee day gis du ko gën a firndeel ci loolu nag xam na ne am murid du wàcc waaye waxtu ne yéen a ngi ci ndigal waxtu ne itam yéen a ngi gàttoon ndigalu sëriñ bi. ndax lii nga xam ne euh, mbas la moo xam ne suñu borom moo ko fi wàcce te naka jekk mas ci àdduna di am ci jamono yonent yi ci jamono sëriñ bi peste ba kon loolu yàgg ci àdduna la ba suñu borom mi ko fi indi te na ko sëriñ bi waxoon rek mbindeefum yàlla la moo xam ne fu mu ko yebal mu dem fa waaye waxtu ko jeexalee mu jeex nee bi mu agsee itam ba mu yëkkati kàddu yi ndigalam ak lam ci jëf gis na nga na ngeen ko gàttaloo ci ndigal la ndax li ngeen ci def mën na juróom fukki million wala lu ko ëpp lépp ngir dëggale ko ndigalu sëriñ bi ak baatu sëriñ bi nee na loola nag moo tax mi ngi leen ci sant bu baax ci iweesu yëpp nag li ngeen def ci dëkk bi ndax loolu lépp nee na lu ko waroon la muy lay jëm ci wàllu forage yi nga xam lu ci paan lu ngeen ci man da ngeen ko gàttoon def ko tàmbalee ko ci màggal Tuubaa ba ci yi bi amaatee jafe jënd ay pompe yu bari defaat ko ci ak lépp lu jëm ci li leeral dëkk bi ku romb ci mbedd yi xam ne eh, seen jëf feeñ na fi neen loolu lépp nag ki ngeen koy jëfal mu Serigne Touba teg ci bëtam kon mu ngi leen sant bu baax di gërëm tey gën a dal xel ci liggéey bi ndigal li nga xam ne joxaat na leen ko it mooy fii wér di gi tolloo xam ngeen ne dafay yokk ndax jeexagut yéeg ngeen ne hôpital yi ne ci biir dëkk bi am na ci yoo xam ne fees na ba am na ci ñoo xam ne ci biir kër yi lañ leen dugal Euh, téye leen fa buñ leen téye ci biir kër yi nag te amuñ dund bu leen fa fekk dana metti ci ñoom ndax boobaa euh, falyabudu rabba haazal bayt allazi at'amahum min juu'in wa amanahum min xawf bala ngaa mën a jàmm yàlla sax faw sa biir dara da ci kon nag sëriñ bi xam ne loolu jamono ji xat na na mu bëggoon a yëkkati ci euh, alalam yëkkati ko def ko ci ngir xam ne képp ku yewoo ci dëkk bi rek boo amee gàllankoor war nga nga ne ci xat-xat lépp moom la war noonu la ko yéenee ginnaaw bi nag mu xalaat ne seen mbooloo mii kat alali Serigne Touba la jëfi Serigne Touba la itam moo tax mu waroo Serigne Abibou bi mu dikkee itam mu ànd ak ñi ko seqal di Serigne Abdoulaye Mbacké ak Serigne Abdou Fatah Gueye mi ko jiite ak Serigne Fallou Ndiaye ak Cheikh Mouhamadou Mourtada mi di doomam ak mboolem ñi fi fekk. sëriñ bi joxaat ko ndigal ne ko ñooñu nga xam ne ñooñu leen tey ci biir kër yi laa bëgg la aju ci seenu dund ak la leen di war ba tax li nga xam ne wàllu kër docteur sant nañ leen ko ñu mën koo def mooy bañ génn ci biir kër yi ngir di wàll ñeneen ñi sëriñ bi jox leen ci ñoom itam ñu ànd ci mbégte ngir xam ne li ñuy def lépp dañuy dàkk waaye nag li jógee ci sëriñ bi mu santa leen ko boppam mooy la gën ndax ndigal kat li muy baax baax la ci ëpp solo mooy ñu sant la ko moo gën nga di ko laaj. lii nag ndigalul leen sëriñ bi sant kon mi ngi leen di gërëm leen ñaanal bu baax ni ngeen yàgg jëfee ndigal yi ko jëkkee rek ndigal lii itam ngeen yàgg koo jëfee noonu taalib yi nga xam ne ñoo ci dugal seen alal itam sëriñ bi ngeen sant ngir xam ne ku ci jëf sa ku ci ku sab dërëm dem àgg na ci Sëriñ Tuubaa ndax eh, li ngeen di laaj ñépp teg nañ seen bët ci fi ngeen koy def moo tax xelum xolub taalib yëpp dal ci moo tax ñëpp itam sawar ci jëf ci ngir xam ne kuy jëf boo soñu maa ngi bi kon nag yàlla na yàlla saxal leen ci bu baax li ci res nag mooy di soññ nit ñi rek ni ko sëriñ bi santaane eh, bëggoon ni ci sax yëkkati ay kàddu waaye mu ne naa ko soññaat nit ñi ñu xam ne itam ndigal yi nga xam ne santaane na ko eh, ba joxe ci ndigal ñu di ko wattandiku ci biir jullikaay yi ndax eh, kon dem nañ ba ñëpp yéene woon nañ bëgg ñu ubbi ko ba yàlla def ñu ubbi ko nee na bu soñoon itam buñ ko ubbee itam nit ñi sàmmonteeg li nga xam mooy tax wér gu di wàlle waaye nee ni ñu koy sàmmonte ci biir jàkk yi ñu ne ci biir marché yi nee na ñooñu itam nañ xam ne eh, liggéey dafa mënta ñàkk ndax jàmm yàlla bokk ñu ne ci biir marché yi sàmmoon teg li nga xam ne ñu yor wàllu wér gu yaram ñu ngi leen koy wax ngir bëgg wér di gi bañ ndax képp koo xam ne wàll nga ko sa mbokk tey ko kat na nga xam loolu bàkkaar bu rëy ji kon loolu itam nañ nañ koy wattandiku ci marché yi di ko wattandiku ci biir kër yi bu ñu ko defee rek yàlla mën a cee def tawfeex euh, te xam ne fii ci dëkk bi euh, taalibe yi sëriñ bu soñoon ñu aarut sàmm ndax xam ne seenu njàmbar xam seen positif ndax lu fi ne rek seen positif ak seen jom ak seen seen yitte moo ko fi def kon nag euh, mi ngi leen sant leen gërëm di leen la te xam ne ni mu ko waxee woon rek lépp lu fi mat fàggu rek sëriñ Tuubaa fàggu na ko lépp lu fi mat a ñaan ci dëkk bi it sëriñ Tuubaa ñaan na ko ku gis li fi xew lépp ni muy demee. lu ci ne da nga xam ne ñaanu Sëriñ Tuubaa jiitu na ca mm. ba tax mu woyu fi ni ndax euh, boo demee ci xaddis yi dañuy wax ne sarax mën naa bañ a fekk waaye waaye dana woyofal mm. waaye dëkk bi itam ku gis jàngoro ji xam dëkk bi ni mu bindoo da nga xam ne ñaanu sëñ yi moo ci tàbbi mm. waaye kon nëgë ni da nga fekk ay bakkan yu bari ci kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi lay nuyu ci turu Serigne mi. di fam nuyo bi ak cheikh bi diko tek ci loxo nga jallalel ko ci defa gu tedd gi cheikh mamadou muntaha di ñaan sun borom mu yagal ko fi lol te may ko ak wér ak àggaleel ko ay ak i naalam ak ak mebetem ak bëggam ci liggey seigne touba lepp yalla nak ko sun borom àggaleel ni ko bëggee ten and ko mom ci bakki seigne touba di sante bu baax baax nak ci ndigal li nga xamne ne jot man ko mu joge ci mom jaar ci kii ak mbooloom Touba ci kanam du Serigne Habibou bi Serigne di wax ne mi ngi gën a sant sëñ Touba moom mbooloo mi bi leen sëñ Touba yëgee ba woo leen di leen liggéeyloo ndax li li ñu ko wax léegi rek dañ doon dàkk waaye lii nag day mel ni ak bëgg boppam gu mu yëkkatil boppam waxal na ko boppam la kon liñ doon def di dàkk lépp tey day mel ni jam nan wax ji it du weesu rek samih naa wa atax na dégg nañ ko te fas nañ ko yéene jëfee ni mu ko waxee ni leen ci bëggee te ni leen ko fas yéenee jëfee incha allah ni nga ko bëggee ndax dafa mel ne dañ doon dàkk tey nag lii mooy sa bëgg te sa bëgg dong lañ bëggoon a xam ba def ko di wax ne nun taalibe yi nan gën a takku ci sàggal sëriñ bi nag ndax sëriñ bi sàggul lislaam la te sàggal na lislaam ndax bi jafe-jafe amee la cay wàllu lislaam wàllu sëriñ jox na ko ko dafa ma sa wax ne nañ nañ ko doxali nii ngir bëgg mu woyof na mu waxee ñu koy doxalee ba mu demee ba gis ne war naa gën a yaatu gën na koo yaatal bi mu ko yaatalee nag sart yi mu ci teg nan ko ci jàppale defe ko nam nu ko diggalee ndax suñu njariñ jàpp tax ndax kat tawat ji noonu yaakaaruñ ci musal suñu bopp lii ñuy diggal sëñ Tuubaa lañu yaakaar mu musal nu ci ginnaaw sëñ Tuubaa lañu yaakaar mu musal nu fi te mooy sëñ moo fi nekk sëñ Tuubaa nag kàddu yam mu ne def leen ko nan ko def ndax bu ñu ko defee dana mucc kon lu mu nu ci diggal nan ko def ndax lépp loole mooy suñu njariñu tey mooy suñu njariñu ëllëg moo na mën a fegal itam looy tawat jii jëfe sa ndigal jëfe ndigalu sëñ tubaa képp moo mën a tax tawat ji doon lor noonu te yaay sëñ tubaa kon li ñu fas yéene mooy ndigal loolu na ñun ñëpp ni ko sëñ Bassirou waxee jottali ko nan ko dégge noonu te fase ko ni te defee ko noon yi ndax ci la suñu njariñ nekk ci la suñu njariñ tey nekk suñ suñu njariñ ëllëg nekk te moo ñu musal topp ndigalu sëñ bi moo ñu mën a musal kon ñu sant bu baax tey gërëm tey ñaan taxawaay bu yàgg lool ci tuur sëñ Abibu ak ci tuur waa Tuubaa ci kanam gépp ñu ngi lay sant te di la ñaanal tey gën ñaan bu baax a baax lii nga xam ne euh, digal nga nu ko nga gën ñoo ñaanal ba waxtu wu ne ba saa su jugee jëm ci noonu rek fekk na jekk nañ ci def ko te ko na ko bëggit te daji te si ngërëm jërëjëf Mbacke tolluwaay bii ñu toll li ñu ci dox ak li xel bu baax ci li ñu li ñu lépp sëñ bi noppi na ci fàggu nañu lépp fekk na nag la mu fàggu li mu fàggu ne dox bàgg ci rek mm-hmm. ni jëti cët waaye faggu lu mat a faggu faggu kon loolu ci loolu nag am na yëqin ci tolluwaay bii ne ci yeesal suñu cant cant gu rëy si yeesal suñu jaayante di feddi suñu laxasaay waaw di di di di di di sant di sant di di am mbégte mu ma am. ci mm-hmm. tolluwaay bi. Mm-hmm. ndax xam naa ne nii nii nii rek lu ci ne. Mm-hmm. suñu tool noppi na ci. waaye lu ci ne dañuy dox ba ak ci fii lu toll nag. alhamdulilah mën nañ cee dolli ko yaakaar. mën nañ cee dolliku yaqin mën nañ cee dolliku lépp nga xam ne sëñ bi fàggu lépp waaye tolluwaay bii leeral feeñal lépp lépp mooma doon ci dara lu ci ne wommat la boo xam ne dañuy lu lu war a romb dañ koy romb loolu war a àgg nu seet dégg ko ñu ko war a diggee foofu rek lañ toll lépp mooma waaw kon nag li ci li ci kanam lépp dañu gën a fedd suñu ndax gën koo jox suñu lépp gën koo nekkal ndax nekkal ko mooy nekkal yàlla xarfan bi xarfan mm-hmm. nekkal ko nga nekkal yàlla mm-hmm. sëñ bi nekkul woon ci dara lu borom ci borom rek la nekkoon kon nan ko nekkal mm-hmm. ko nekkalee rek la ci lépp suñu yoon nekku ci peut-être fàggu fàggul nañu ko waaye dan dan dana tawfeex bi dolli ko ci noonu nag ak ndam yu ay ay ndam yu nu yu jëlee ci moom loolu rek moo ci moo moo moo ne ci kanam war na Sëriñ sa a a maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat